مرتجا منة لنا جريء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله mbokk yi ñuy seetaan te di ñu déglu dellu siwaat nañ seen jataay bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci sunu site bi ñuy wax 24 actu tey ñu dellu siwaat fas yéene ànd ak yéen jàngat benn tomb boo xamante ni dafay itteel lool ku dëkk Touba waaye rawatina ku dëkk ci àdduna bi taxam àq ak worma ji nga xam ne Touba yeeyoo na ko ñu waxtaane li nu bokk ginaaw bu nu ñaanalee Serigne sëriñ mun taxaa yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ak mbooleem ay kilifaam ak yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon te nekkoon fi te seen yéene jépp nekkoon ci Touba ak wormaam loolu nag lan bëgg a fàttaliku ak waxtaan bi xam ngeen ne yàlla suñu borom dafa bind bi mu bindee lu nekk mu seet warma yi nga xam ne yeyoo na ak béréb ba mu jox ko ko teg ko nag ci àq nit ñi ñu sàmm war warma jooja ak àq yooyu kenn bañ caa wàññi dara xam ngeen ne bi yàlla bindee àdduna bépp suuf si ko ci gënal ak béréb bi mooy màkkatal mu karama bu màkkatal mu karama jàllee madinatu mu nawwara moo ca topp ñun ak ci sunu pas-pas ci sëñ Touba bu Madinatul a jàllee Touba moo ci topp ci orom yi nga xam ne ñoo gën a tedd ci ñun te loolu jàpp naa ne du def mu baalaxa du def dara waaye ku xam sëñ Touba ni mu toll xam dëkk bi ni ko tuddee ak Touba nekk ak garab goo xam ci àjjana la sax ñu duppeeku turandoo woowu loolu jàpp naa ne war ma ak mbëggeel ak jariñu moo tax sëñ Touba tuddee ko noonu buñ demoon ci wàllu ni réew mi tëddee ci wàllu suuf si buur yi moomoon ceddo yi moom ko nangam da ngay xam ne Touba kenn mësu koo moom du ceddoo du tund bawal du tund kajoor du tund saalum du gànnaar kenn mësu ko moom ab urum la bu fi amoon boo xam ne deret mësu fee tuuru ceddo mësu fee def dara sëñ Touba moom ko loolu nag bu dikkee ba jamono tey ñu toll ci waxtu wi ñu toll doomi sëñ Touba yi fi mas a jaar yépp di wormaal dëkk bi di wormaal sëñ xam nga ne nekk gi fi sëñ Touba nekk rek joxaat na ko beneen valeur ak beneen màggaay ak beneen ma jun ko war a kii xam ngeen ne bu sëriñ bi nekkul woon teewul dëkk bi dina am ma waaye nekk gi fi sëñ Touba nekk nag moo tax mu ëppati warma fépp xam nga ne sëriñ bi amoon na yeneen i dëkk amoon yeneen i tur fu nekk waaye warma ja wàccuwaay bi Touba am yooyu amunu ko te la leen ko xañ mooy nekk gi fi sëñ Touba nekk nekk fi lépp a mujj fi loola moo ko xañ warma yooyu ndeteewul am nan warma dëkk yooyu waaye warma yooyu yépp nag dafa jëlaat sëñ tubaa nekk gi mu fi nekk tax warma jooju gën a màgg jàpp naa ne dëkk bu sëñ tubaa nekk toon ko ngir lislaam rek wax na ñaan na yàlla bépp xam-xam boo xamante xam bu dagan la ñu jàng ko ci dëkkam bi xam boo xamante ni te sëriñ bi di ñaan ak bijjeeku ak ak moytu ak ak jañ di jañ bépp loo xam mu génn dëkkam bi yàlla bu mu am ci dëkk bi ñaan ko yàlla ne képp boo xamante ni xam-xam bu dagan la te dagana jàng nañ ko jàngi sama dëkk bi sëriñ bi daan waxtaan ak mag ñi ci Touba di leen wax ne leen dëkk boobu lépp lu araamut dinañ leen ko fa indil dinaa ko wommat ba mu ñëw foofa àggoon ci wax ne képp koo xam ne nekk nga sama dëkk bi ñett yi maa la ko warlul maa la warlul ndox mu ñuul ak la ngay dugal ci sa biir muy depp muy la ngay dunde boo faatoo maa la warlul àjjana yooyu jàpp naa ne mag ñi dégg nañ ko ci sëriñ amoon war ma lool ci dëkk bi joxoon ko war ma lool ci baree bari ñoo bu xamee seen i dàll ca dëkk fa ñuy wax mbal lan ko daan summi ndax warmaal dëkk bi bu nu dikkee ba jamono doomi sëriñ tubaay yi sëñ Abdulaat mën nañ ko ci tudd tàmbalee ko bi mu fi toogee moom dafa toog jël décision yu mag ne bëgguma ko fi tox bëgguma ko fi naan sàngara bëgguma ko fi doroge bëgguma ko fi tëgg sabar bëgguma ko fi tëgg tama bu jubewul noonu noonu côté yooyu la ko waxee tudd na leen xanaa loolu mooy xam jamono ak xam li xew ci réew mi li nuy wax ne Seydina Omar daana wax ne lastu bil xabdi wal xabdu laa yes daxu nii du ma trian waaye trian du jaar fenn kon bu nu dikkee ba ci dëkk bi léegi ñu daanaka ya nga daan gis ci yeneen i dëkk di ko dégg ci yeneen dëkk yépp nga dégg ko bu nu mënee dem sañu laat aaye fii loolu wax ne bu fi kenn tëgg bu fi kenn def xam ngeen ne tëggkat yi tëgg ñoom xàmme tëggu sabar ak tëggu tama tëggoo xiin ak tëgg yooyu yëpp li tax sëriñ bi tudd ko mooy xam gum ko xam manoon na ne aay naa fi tëgg rek waaye yooyu yëpp daf ko fi aaye buñ demee ba loolu mu aaye woon ci dëkk bi ñu ko fiy gis di ko fi gis léegi nëbbatuñ ko moyteetuñ ko di fi gis kuy tëgg di fecc la ca gën a metti gën caa tiis nag ñoo xamante ni fooge wuñ ko woon mukk mukk mukk ci ñoom jàppoon na ne lu àdduna yàqu-yàqu ak lu jamono sensé sensé wëlbatiku seeni pénc wala seeni béréb loola du fa jege wala bokk seeni bakkan wala seen dara du ko fekkee bu demee nag ba foofa nag ca digg yooyu fan jàppoon ne fa la war ma ya nekk ci ñoom ci seeni bunti kër léppi sëriñ ba nekk fa barkeb sëriñ ba nekk fa dereti sëriñ ba nekk fa tëgg sabar man faa jóg tëgg tama man faa jóg ay tëgg bongo man faa jóg loolu de du tiitaange ci ña koy def waaye ña nga xam ne noo bàyyi woon seen dëkki ndey seen dëkki bàyyi bàyyi gàddaay ñooñu moom tiitaange la bu fekkee ne wut si woon lu baax rek ñëw moo taxoon ñuy rawale seen diini kon dina xam ne nag wax yàlla tiitaange jot na am na boroom xam-xam bu mag bu daan wax ne bu nu demee ba docteur bi nga xam ne malaat bi feebar dem ci hôpital di faju yi dafa fekk médecin bi koy bi ko war a faj feebar ba toll ci sukuraat moom malaat boobu nu muy def day tëdd dee ndax amut ko ko faj jàpp naa ne àgg nan foofu lool lool àgg nan tëgg ak fecc nag moom la ci imaam Malik waxoon rek loola lañ ciy tontuwaat imaam Malik bi ñu ko laajee ne ko tëgg ak fecc fecc ndax dagan na wala daganut doon ko laajee ne ko ndax fecc dagan na wala daganut mu ne leen xaw ma dagan na xaw ma dagalut waaye ñi gën a yées ci sunu dëkk ñoo koy def te mbir mi noonu rek la demee ñu koy def ñi gën a yées la kon mbokk na ci loolu warmaal sëñ Touba ak li sëñ Touba daj ci lislaam bu yàggul rek sëriñ Muntaxa yëkkati ay kàddu wax ne yi naqari yàlla bëggatul kenn def ko ci dëkk bi ak loo xamante ni da ngay wane ak feddu géew wala wane na sa mbirum bopp nga yor àgg ci melaw woo xam melaw tàngaay la woo xamante ni jàpp naa ne bu nu mënee toog boobaak loolu matagul ñeent fukki guddi wala fukki guddeeg juróom ñu mën a amaat xew-xew yii di daw ci internet bi loolu li muy wane mooy wane rek ni ku ñàkk kilifa wala nit ñoo xamante ni nag amatuñu wax dëgg yàlla jaaxle jot na fu ñu daan rawale diine bu ndemee ba euh, ay biddaa ak yeneen yoo xam ne di sullikoo foofu di sullikoo ci kër ya nga xam ne nag wax dëgg yàlla bu mu jaaxle masaana am diine masaana am aw naqar ñu ne nan waaxu si Touba ndax moom moo koy faj fi la diine daan daw mu ne daw nag ba ñooña di ko def ay jigéen di ko def ñu yaroo ci ñoom bokk ci loola di ko def loolu tiitaanga la war a doon loola nag li muy wane rek wanewut manqué ak sëriñ bi wanewut dara ci sëriñ bi ci ñàkk ci nam meloon ci yàlla loola moom sëriñ bi moom daana wax ne moom képp ku nekk ci lu baax yow laa bokkal ku nekk ci lu baax xamal ne yow yaay sama mbokk ak lu ma nit mën a jege-jege te nekkut ci li neex yàlla xamal ne aw tuddoondoo damay tudd rek waaye bokkunu dara te loola li koy tegtale nit mos naa dikk fi ne ko man de sërif laa sëtu yonante bi laa mu ne ko man de liggéeykatub yonante bi laa loolu li muy jege mooy mbokk amul benn boo ko seetloon ba ca yonante yàlla noo nga dikk ca wax loola seet doomam jafa mu mujjee ak yooyu yëpp da ngay xam ne yàlla moom du jaawale mbir yàlla du ko jaawale du ko jaawale mukk boo xoolee dëkk bi bu yàggul rek ñu ngi ne dañuy dindi kanaal yi kanaal yi ñu fiy seetal loolu lu ko gën a tiis loolu boo demee ci dëkk yi nga xam ne dëkki taax la boo demee mairie ba ko yore ak ñiy saytu dëkk bi ci wàllu àdduna ñoo ko war a def ñu nag buñ dikkee ba Touba ñiy saytu dëkk bi daanaka loolu gisoo ci dara luñ ci def ña nekk ca sancaan ya di bàyyi faal wala ñeneen ñoo dikk di kërti kanaal yi la ca gën a metti ci xol mooy ñu ne kanaal yi am nañu ci branle seeni duus yoo xam ne seeni duus yu nekk ci seeni kër muy xelli di dem ci kii bi loolu nag doo xam loo koy firee ngor du ko mën a firi diine du ko mën a firi mooy ku ku tuuti daal koo xamante ni judd bu xeebe la yor moo war a mën a def loolu jàpp naa ci nite sax loolu kenn waru ko woon a mën a xalaat toog ci sa xar toog ci sa buntu néeg wala sa biir néeg fay say làmp lëndëm gi dar la mënoo analyser ba loolu war a mën a nekk sama xel loola nag li muy firi rek mooy ku doye di ko xamante ni mbiram yépp amul nit ku mu doon ñàkk doon nit ku mat ñàkk a doon itamit nit koo xamante ni ku tedd nga ku yàlla bindal benn teraanga mooy def loolu ku yàlla bindal jenn teraanga doo def loolu jàpp naa ne loolu ku amul benn teraanga moo koy def rek koo xam yeyowu dara lu dul toroxal ko ak bëccingal ko rek la war a yàlloo jàpp naa ne nag ñanu dénk dëkk bi nag seen warugar mu matul rek te bu matoon loolu xañ nañ mënuñoo sàmm lépp mënuñu soo saytu waaye kon yooye dina jëli matuwaay démb rek wala bu yàggu rek gis naa benn station boobu fa mu placé rek ñàkk a jekk mu ñàkk a nga xam ne dindi woon nañ ko fa waaye boo demee tey ña ngay toj di wone ne ndax foofa seet nan ba seet na fii ndekete moom ci canal yi la placé ndox mi muy laawaase ak mi muy def ba bërki démb rek la romb ñu koy toj loola nag lan ca war a teg mooy sanction yu méttee méttee ci war a jëf ndax ku def jëf ju ci wër ju toll noonu ci dëkk bi ak baadoola gu tol noonu ak jël àq ak yabaate gu metti googu loolu sanction yu metti sanction yi bokk na ci jële fa la mu fa defoon muy station ba wala bu fekkee ne looloo xañ ne wees na ñu def ko daan yu méttee métti yoo xam ne ku ko dégg da nga xam ne lii yeeyoo wut di ko ci def kenn waratu ko fee def waaye loolu ak di rek lay wane ak ñàkk a jox respect ndox mi nii lakk yépp yooyu yépp boo dellu dellusiwaatee tey ci banque yi fi sëñ Saaliw aaye woon xam ngeen ne dëkk bu nekk dafa am orum boo demee màkk am na loo xam ne fa la orum ba yem ca dëkk ba la bokk waaye orumu màkk am na foo xam ne fa la li wër kaaba gi jëm ba ci nangami mètre ay orum la fii sëñ Abdu nee na woon képp koo xam ne mënoo ñàkk a def ci wàllu politique defee ko daaru marnaan bu demee ba léegi politique ñu aaye woon ko fi foo jaar nit ñi liñ cey def sax la ca gën a ñaaw mooy di ko làmboo boole xew-xewu diini dañuy sant diw sàngam sëriñ diw sàngam bu ngoon ngaa ñu def seen meeting bu mag a mag a mag ña koy def sax ñu ci gën a yéeme mooy boo dellutuwaatee ñoo xamante ni jombul am na ca bu àdduna mënoon naa dox ba ñoom tey ñu ilif dëkk ba waaye seen xel ak seen i mébét ak seen eh, xoolin wu ñàkk a gudd boo xam ne weesuwul seen tànk weewu tànk ñooy def yu mel noonu loolu nag lu tiitlu la beneen bi ci des ku ko fa mën a def ak taalibe bi sëriñ Sidi Muxtaar aaye na ko fi sëriñ si ñëpp aaye na sëñ Saliou bu yàggul rek waxoon ne fii banque yi nga xam ne dañoo nekk ci urumu Touba jege jumaa ji na banque yépp gën dem fa nga xam ne moo di corniche ba ginnaaw corniche ba waaye loola yellanteeg fi taxoon dëgg dëgg sax sëñ Saliou di ko wax boo demoon tey am na banque yu nekk ca wet ga yoo xamante ni matul digganteem ak jumaa ji matul 500 mètres banque ñu dem fii jàpp naa ne ñun ñëpp kenn du ko fàtte sëñ Saliou nee na woon banque yi nanu génn fii nga xam ne moo di urum bi waaye tey boo dikkoon ci ñeenti xibla yépp banque yi même pas 500 mètres digganteem ak jumaa ji te ku nekk xam na ne loolu doomi Sëñ Tuubaa ju ko aaye dong jaroon na bàyyi ko waxantuma la ak yow ci si wàllu xam àq dëkk bi rek war rek eh, ak àndut ak loolu banque yoo xamante ni la ñuy def wax dëgg yàlla ak ña fay jaxasoo ci diggante góor ak jigéen ak yu kenn xamut ci béréb yooyu ñu bari fa kenn du dikk ci banque bi jigéen dafay jëli xaalis góor dafay jëli banque yan yi toog ak mentuwaay yan yi nekk faaw jaxasoo am fa jaxasoo boobu nag diggante góor ak jigéen amul fenn fa ko lislaam daganale rawatina nga dikk ba ci urum bi nga xam ne digganteem ak jumaa jigéen xamul nu mu toll. loolu sëñ Saaliw aay woon na ko waaye dafa mel ni ñoom danoo jàpp ne sëñ Saaliw jóge na fi dëgg la jóge na fi waaye jàpp naa ne ku am baseere di nga xam ne sëñ Saaliw xam na li xew ci dëkk. la ca gën a yéemewaat mooy jàngalekatu alxuraan yi nekk ci dëkk bi reserve yi ñin jox dëkk bi ci pàkk yi wàllu chef de rawatina bii nekk ci wetu chinois yi nekk ci côté yi ginnaaw chinois yi côté yooyu liñ fi lëjal ci réserve bu fi amoon mbedd yi nga xam ne day mbedd dëkkuwaay sax mbedd yi tëli yi waroon a jàll wala mbedd yu ci bari jaay nañ réserve yi foofu jàngalekatu alxuraan yi nga xam ne dana war a am fu ñu defi daara pàkk bu nu am sax mënuñu ko am loolu ak dëkk boo xam ne daaraa taxoon ñu sanc ko ki fi dikkoon daara taxoon ñu dem ba daara boo ko fi doon wut tey problème lay doon te loolu chef du village yi fi nekk di ko def boo demoon tey ci problème yooyu ñu jëloon di recenser chef du village wala problème yi ci am kenn xamul nu mu toll rawatina fii ci sinuwaay yi jëm ci yoonu daal ma moom ki fi nekk moom jàpp naa ne xaw ma bis dana mas a ñëw bu dajewut ak kii tamit dana dajeek sëriñ bi ndax yi cay luubal ak ya jaxase kenn xamul mu toll kenn kenn kenn xamu ko euh, yooyu nag ku ko def rek dëkk bi moom mën nga fee nekk di fi yàq ba yàq waaye di fi yàq ba yàq fi dara mënul nekk mënul nekk te nekk fi nag ba ne nekk fi sa ngone ban ne ab paa di def lu neexul yàlla loolu mënul nekk bokk na ci leneen yin fi war a def xolal corniche bi oto yi nga xam ne dañuy jógee ci Ila Touba bi jaar ci kii bi Matiyaana fii la ni jànnatu la ñuy jaar jaar ni oto yoo xam ne ci sortie bi leen waar ñoom jëm si wuñu ci dëkk bi sax ñu nga jëm ay daara jolo wala yeneen waaye fi ñuy jaar mooy ci bintu jumaa ji la ñuy jaar jaar ci mbedd sëñ Moustapha moom sëñ laat moom nga xam ne daanaka heure yin tëdd di nelaw ay 3 heures du matin nga yor oto ngandam oto la mu sëf xamoo lu mu doon lu araam la lu ñuy aaye mu jaarale ko mën naa am bu dee lu salte loo ma ngay xeeñ mu jaar ci orumu jumaa ji ñëw jaar ni jaar ci buntu saw bi jaar noonu wër jumaa ji te mu continuer dem oto yooyu loolu ab dëkk ku ko yor jàpp naa ne loolu oto yu mag yi waruñoo jaar ci biir dëkk bi dañ leen waroon a wutal ci corniche ba ñu teggi ñoom buñ fi soxla wut ak bu buñ fi soxlaa ñu jaar ci corniche bi dem seen yoon mais oto yooyu kenn waru ko bàyyi ñu loolu nag day delluwaat ci ñu yor dëkk bi ci wàllu àdduna rek lay delluwaat ne ñoom ñoo matalewut am na ku moom ma sa lu am solo ne ma tey boo jóge woon Ndakaaru doon gan war a dem Daara jolo benn table bu lay guidé wane ne fii nga war a jëm wala da ngaa war a jóge Dakar war a dem gaarasu Daaru wala wala dem nu mu tudd jëm mati jànnatu côté yooyu amoo benn signal benn kii da ngay dox ba ci dikk bi ngay laajte naa sëñ bi fan moo yoonu Daara jolo ñu naa la weesu nga ko feneen nangam nangam yooyu yëpp te boo fi jaaroon ay affiches yi maanaam yuy publicité kenn xamul nu mu toll kenn xamul ci wàllu publicité yi table yi fi nekk loolu nag day dellu ci ñu yore dëkk bi rek ci seen wàllu àdduna yii nag bokk na ci lu naqari taalibe yi lool lool lool lool naqari taalibe yi yoo xamante ni ñi waroon a defar waroon a jiitu ci njobbaxtalu defar bu ñu demee ba ca njaboot ga wala ñu dem ba lay lay metti foofa lay jóge la Cheikh doon wax ne euh, dëkk bi làkk nan ko làkk bi làkk nan ko waaye la koy ñàkkarti la koy ball lay bënn làkk bi ci biir lay juddoo loola day mel ni day firnde wu firnde ju leer yooyu nag jàpp naa ne adduna moom lu mu ñàkk a jagadi jagadi am na ñoo xamante ni defar sa bopp moom kenn obligatoire la ci ku ci nekk ndax yonante bi sallallahu alayhi wa ne kullukum raay wa kullukum mas'ulun boobu ak raxya ak sàmm gi loolu jàpp naa ne responsable ñi fi nekk ak ñi ci bokk mooy seen responsable alxuraan waxoon ne xu anfusukum wa ahlikum naaran moytu leen sawara te moytul ko seen ñoom am na ñu bari ci taalibe yi ñoo xam ne nii dikk Touba mbuus ak perméable gu werte gu bula googu lan yoroon lan ca def ci yére matul ñetti complet dikk tey bu ñu dikkee ba ay magasin wër leen ay kër war leen alal war leen ba tax ñu ànd war ma ji waroon a am ci dëkk bi amatuñ ko loolu ñàkk teggin la ak dellu ginnaaw loola de saxaba yi nga xam ne ñoo ñëwoon Madina gàddaay ñëw Madina ñemewuñ ko woon yonante bi ña nga xam ne danoo jóge woon ci yeneen i dëkk ñemewuñ ko woon ci yonent mag ña àndoon ak sëñ Touba ca Touba ja di gor Touba ñemewuñ ko ñoom ci kër sëñ Touba gi ña nga xam ne suñuy maam wala seen maam ñoo àndoon ak sëriñ bi ñoom ñemewuñ ko woon ci digganteem ak sëñ Touba buñ la waxee ne la fii maam Thierno rëddal nañ ko sëñ bi di ko liggéeyloo kër gi daf ko layoon ba wax nañ ne bu ci puusa masaana wadd sax dañ koy gis kon mag ñooñu waroon sëñ bi ñoom ñemewuñ ko woon bu ñu demee ba commerçant yi fi nekk seen intérêt bopp moo leen gënal ñu dem ba fii nga xam ne sorewut ak jumaa ji ab canal lu wax canal boo xamante ni ay fubal lay wane ak fubba ak ay ay filma yoo xam yu kenn bon ñu dikk samp ko ci digg Touba ci orom bi ay canal yoo xamante ni li ñuy wax loo xamante ni seeni télévision yu wane ay canal ñu bari di ci abonné jàpp naa ne bu fi demoon bu mënu fee ñàkk bañ a samp ñu génn bi fi sëñ Saliou di génn rajo yi yaakaar naa ñëpp a ko yem na rajo yi damaa jàppoon ne ci diine ak alxuraan ak lu kii la da ak njàngaleem sëriñ waaye ginnaaw mënuloo tënku ci loolu nun génn dëkk bi dem feneen kon depan jàpp naa ne ñëwante naag lool ñu dem ba ne eh, canal bu nuy wax nangam moo dikk fii ci ormay Touba ji mu samp fi di génne ay football di génne ay nangam di génne ay film ay nangam nit ñi di ko abonné jàpp naa ne bu mënu woon a ñàkkit mënoon naa génn ca biir orum bi moom li wër corniche waaye kamt nag bu ñu demee nag ba nga xam ne nit ku nekk nag danga nga ne cell nag li la gën a ñor ci sa kii mooy barke bi la sëriñ bi defal waaye nooy sàmmee barkeb sëriñ bi ak nooy ñoŋale sëriñ bi loolu ñoru la loolu moom day wane na rek euh, maanaam xar mu bëgg a regg maanaam jur guy lekk la rek koo xam regg rek moo ko ñor ci boppam waaye bu reggee la muy kii te sëñ Tuubaa dafa waxoon ne nit ki li mu lekk bu lewut noonu la koy reesale ci lu lewut rek lu neexul yàlla ci la koy reesale bu ko lekkee amee ci lu lew lu lew rek la koy reesale waaye bu ko lekkee ci lu lewut ci lu lewut rek mooy ana kay fecc kay fecc di pàkkar di kooku xam nga ne bu lekkoon lu lew maanaam ca derba wala ca kurus ga wala ci julli wala ay salaatu ala nabi wala ay eh, ay yeneeni tasbihaat lay def yu boo xamante ni ca lay reesale waaye quand ku nekk rek la nga lekk te yonante bi sala sala dama ne xamaatu diinu tuddaanu ne araab yi dañuy wax noonu ku nekk la nga leble rek loolu lan lay fay jàpp naa ne lii lu tiis la ci xol yu nuy wax yoo xamante ni yàlla rek a tax ñu koy wax te yàlla moom lu nit tax loo xamante ni mbir mooy wax te yàlla rek tax yàlla rek nga cay sédd ak sëriñ bi te mbir moo xamante ni yonante bi salaa salaam ban koy aaye ne ko li ngay wax te nga ko bàyyi ak li ngay woote mu ne bu nu jëloon jant bi ak diisaayam jël weer wi ak diisaayam teg ko sama loxol càmmañ bii ñu teg ko sama loxol ndigg lu sama loxol ndijoor du tax ma bàyyi ko waaye lii moom sunu mbir la moo xamante ni ñun ñëpp danañ ci wax yenn saa yi nga dégg woote ci télé yi wala ci rajo yi ñun waa Touba d'accorduñ ci loolu yow ban responsabilité nga am ci Touba ban ban amoo fi benn responsabilité. li ma doon wax léegi ci pàkk yi sëñ laat bi mu ko fi kiyee sëñ Maodo bi faaw ñu ndokkeel ko ak ñaanal ko mu gudd sëñ Maodo jaxat xoolal bi mu yoree dëkk bi benn problème mu suuf seere woon lépp waaye daw ko dégg amul benn pàkk boo xam ne naa moo ko jaay wala moo indi ay problème waaye chef du yenn yi nga gis jaay pàkk ñeenti nit wala juróomi nit nga jaay ko dem ba mbedd moo xam mbeddu central la dëkk ba gu fa dëgg dëgg nga dem baare foofa dagg ko ay nit di ko tabax nga koy jaay dafa ne yaa ci nekk àdduna sa kanam doxal dina bis dana mas a ñëw suuf soo su nga doon jaay ci biir suuf ngay dem te sëñ Tuubaa da doon wax ne ñett ñett yi jara bàyyi xel la fii la waa ji nekkoon lii la fi def fii lañ ko def loolu rek kay mujjee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa